assalamu alaykum bokk internautes yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar eh, di wax képp kuy gën ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk te ñu ñëk njëkk gis wé leen di like te di commenter te di partager bokk na ci li ngeen ñu mëna a eh, soutenir ñu ñëw ci match bi doxoon ci digënté FC Barcelone ak Villarreal bu Nicolas Jackson mu nekkoon match bo xamante 10e journée eh, La Liga la Barça gagné 3 bi à 0 grâce à un doublé de son attaquant polonais Robert Lewandowski, 31e 35e minute Robert Lewandowski dadi dougal en Ansu Fati n'y dadi à la 38e minute Barça tay de dafa euh, euh, li nga xamante esprit de revanchard ndax dafa la défaite euh, ci euh, week-end passé contre Real Madrid ci classico bi tey ji mu ñëw dal luddul lek Villarreal rek defu ko ci première mi-temps bi le régler li nga ne match bi 3-0 ci euh, première mi-temps bi après nak deuxième mi-temps bi Barça def na ay occasion yu bari bari mais taxul mu daal di ci deuxième mi-temps bi mais nekkoon na match bo xamantene bu animé wu le également l'attaquant international sénégalais le phénomène Nicolas Jackson euh, de nekkoon na titulaire ci match mais mën il a fait un match moyen lool sax moment mo waral ñu jënd ko ci seconde période bi à la 58e euh, minute l'international sénégalais Nicolas euh, Jackson en tout cas en tout cas Villarreal FC Barcelone 3-0 aujourd'hui Barça Momoko moko gagné kon fii la woon gars yi fii jëm ak yeen di wax képp